Yeah. feebar fajoo ci gën ani ñi amoon jaaxle seen wàllu wér gi yaram seen jaaxle jeex na ndax kii saabara seeni jàngoro jooni jooni dikki na ali aliyoon borom xam-xam nitu yàlla ko mag ki feebar bi te gaañi ci lu ko yàlla may ak tawféex ba ku mu jëflante nga sant sa borom seydina aliyoon dafay def ñaan yàlla gu wér te du mun ñaanal teg ci teg sa bët listixaar ku leer nañ ñi ci doy dañu laa liggéey seytaane daf laa topp faru rab daf laa solal loo yaakaar mu tas ndomb yoo xam ne ku ko takk da ngay am kaaraange sécurité dëgg laa la wax ma ne am nañ ci jaar yoo xam ne ku ko takk raw say maas leen ko gaaw aliyun borom borom xam-xam bu mag bi baa nga woo ko ci numéro téléphone yi 78 325 28 27 78 325 28 27 Seydina Alioune borom xam-xam bu mag bi ñëpp doon xaar ngir saafara seeni jàngoro.